ci ci wàllu xam-xam li nga xam ne bind na ko bàyyi fi man xawma koo xam ne mos na ko def ci dans l'histoire de l'humanité kon sëñ bi léppam xam-xam la wax bi nga xamee ne jox nañu commission bi eh, borom xam-xam yooyu yëpp daje ni nga xam ne moom la def moo di tijji commission bi yaatal ko ci wàllu xam-xam eh, di def yooyu ngay wax mille 2011 ñu def premier colloque sur le soufisme invité gi lu mat juróom fukki réew fedd fu ne ci àdduna si ay sommité mm-hmm. jóge fa dikk tewe ko ñu def ko fi Méridien président mu nekkoon réussite totale ñu répété waat loolu def ko 2014 defaat ko daaw 2017 organiser aussi ay ay ay forum yu bari def nañ ko 2016 njëkkoon nañ ko def lu lu jiitu def nañ fa aussi benn lu ñu doon tuddee Carrefour du Magal. boobu si defoon ko Masalik lu mat ñetti fan. yoo xam ne dañ ko boole woon ak ay atelier yoo xam ne bu ñu xëyee dañ koy def di xalaat ci wàllu li nga xamante ni boobu moo moo xewoon ci réew mi. maa ngi fàttaliku jamono yooyu ci lañ doon wax affaire réforme euh, de l'éducation jamono yooyu ci lañ doon wax euh, aussi affaire réforme des institutions eh, ñu bu ci nekk ñu xalaat ci tënk ko xalaataale aussi ci affaire infrastructure ci biir Touba. xalaat yooyu nag bu ci nekk buñ ko buñ ko tënkee euh, am na ci yoo xam ne jëbbal jébbaluñ ko président de la république liñ xalaatu ci wàllu institution ak liñ xalaatoon ci wàllu assise de l'éducation bu ci nekk dañ ko bind tënk ko bi nga xamee ne président ñëw na ñëw na tubaa sëñ Bas wooñu ñu toog ak moom moom mu toog mu jël mu jël bataaxal bi jébbal ko président ne ko kat lii mooy participation tubaa ci xalaat yi nga xam ne ñoom ngi xalaat ci biir bi kon xam nga loolu am na njëriñ ñàkkul ñàkkul am loo xam ne jëlee ko ci parce que xalaat bu jóge tubaab bu ne xam naa ne des na ci euh, des nañ bàyyi xel bu dee bu dee colloque yi ñu fi def colloque bi def nañ ci ay téere téere yi ba tey jii mi fi def nañ fi ay étude d'impact étude d'impact économique étude d'impact religieux étude d'impact social mhm. benn bu ki nekk aussi ñu mool ko def ko ay téere tasaare ko te ñi nga xam ne dañ leen invité ñu jóge bitim réew di dikk di nekk ay kàngam yu mag bu ñu dellu téere yooyu bu ñu ko bu ko yóbboo dañ koy jàngal seen étudiants yi nga xam ne kon di am effet multiplicateur di lu am solo dugg ci université yi euh, li nga xam ne moom la njëkkoon def en 2010 moo di université Dakar suñu faa defee conférence ci dimension boobu ñu ñëw fa defa benn conférence sëñ Bass toog defa un cours magistral devant tous les professeurs et les étudiants donc loolu si nekkoon lu am solo 2010 la woon Euh, booba maa ngi fàttaliku professeur Lamine Ndiaye aussi defoon na waxtaan docteur Khadim Sylla ak ñeneen ak ak ak ak ñeneen euh, loolu li mu li mu jur tey jii sëñ Axam wax na ko léegi nee na tey am na ñaar fukki universitaire ñu biir tubaa di xalaat ci ëllëgu njàng mi te dafa amoon cloison boo xam ne dafa amoon am ñoo xam ne même sax dañoo jàppoon dafa am dafa am lu ñu doon xoolee màggal gi am nañu ko jàppe mm-hmm. loolu dafa daj image bi ci boppam dafa jékki-jékki renversé wu bu am mu am respect boo xam ne dafa ko jur ñu gën a jox gëdd sëriñ bi ci ni nga xam ne noonu la mel mais pas ci ni nga xam ne xañ na noonu la ko ñenn ñi di dund te loolu dëppawut ak li nga xam ne mooy dëgg-dëggi sëriñ Touba. Mm-hmm. ndax xam-xam du euh, du caaxaan. kon jeexit boobu la am am na jeexit ci wàllu production intellectuelle am na jeexit ci production boobu fañ koy dugal ak famille dem mais aussi am na jeexit ci image bi nga xam ne ñenn ñi moom lañ doon xool te image boobu tey jii loola ñu raxas ko ba mu ba mu set wecc mm-hmm. kon foog naa liggéey la boo xam ne liggéey bu am solo la boo xamante ne bii ci juróom-ñetti at yi wala fukki at yi Euh, def nañ euh, def ko fi. def nañ ko fi alors am na beneen laaj boo xam ne mënuñu koo bañ a laaj donte sax dañuy xaw a xëccoo ak yow tuuti xamuñu ndax da nga ko mën a tontom déet euh, mooy cérémonie officielle bi nga xamante ni moom mooy tëj daanaka màggal bi saa su ne ren jii lan mooy war a nekk quintessence su message wu xalif bi ren jii si sa yaakaar. bon loolu loolu du ma du ma du du ma def ni nga wax du ma ma toog def météo. parce que en fait sëriñ bi. ñun li nga xam ne ci lañ mën a wax mooy bi mu dikkee dafa indi ab gis-gis muy vision vision boobu bu mu njëkkee toog def un discours programme xamle boppam ndax boo bëgg nag mbooleem ku mu jiite wala mbooleem ku mu jëflanteel nga xam ko ndax ci lay gën a yombe wala boo jubee nga xam ne yow yaa jubal sa bopp waaye sëriñ moom wax na fi mu nekk wax na li mu doon loolu dafa am solo ci nit ndax aussi nit da koy mën a takk ba mu ba defee loolu aussi ñu gis gis-gis bi nga am na ko ci wàllu xam gis-gis bi nga xam ne am na ko ci wàllu jàng ak li nga xam ne dund na ko ci nangoo toppe li nga xam ne dund na ko ci tasawuf li nga xam ne dund na ko ci ak taalibe li nga xam ne bu jëmam toogee rek mu ne cell ni mu lay ni mu lay yare mhm. ni mu lay delloo ci ci sunu borom mhm. nga xam ne nit ku mat ku kaamil mu ngi ñuy toog ñu ne ko ñaanal mu yàgg fi kon loolu yi moom ñun suñu doxalin munta génn li nga xam ne mooy cadre sëriñ bi ci biir liggéey bi nga xam ne ñu ko def ci màggal gi moo tax même documentaire yu bari ñu koy defar am na ci boo xam ne dañuy wax jëmmi liggéeyu sëriñ Touba ci boppam am ci boo xam ne dañoo dikk ci xalifa yi ba ñëw ci Cheikh Sidi Maxtaar aussi taxaw ci ndax dafa liggéey liggéey bu am solo dafa ko liggéey yoonu rek euh, man gisuma koo xam ne def defoon na yoon wi ci wërsëgam li nga xam ne Cheikh Sidi Maxtaar def na ko ndax ba mu fi toogee la mu wax en privé ay njabootam tey ji mën naa ko wax ndax ñu ko fekkoon ñoo ma ko nett li mooy du ma leen fi bàyyil dara li ma am lépp danaa ko jox sëñ Tuuba te noonu nii mooy li nga xam noonu dox sembu ay liggéey yoo xam ne ba ki nekk ay milliards la lu dikk mu def ci kon sëñ Tuuba gi kon kooku taxawaayam dafa am solo li nga xam ne aussi moom la suñu borom bëgg ci ñun ndax ba nañu jullit yëpp kat ay mbokk ngeen yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi mu liggéey ci liggéey boo xam ne aussi musuma gis koo xam ne liggéey na ko ci ndax suñu borom dafa barkeel lañ ko doon def ba mu réussir ko kon kooku bu fi jógee matagul at bu ñuy màggal faw ñu dellusiwaat ci moom ca lañ ca mujj nag moo di dikkaat ci vision bi nga xam ne Cheikh Mountakha am na ko ak jikkoom yu nga xam jikkoom yu rafet ak ni nga xam ne noonu lay dunde tëjee ko li nga xam ne aussi moo di les pôles de développement économique et spirituel yi nga xam ne yoonu murid créé na ko depuis jamono sëriñ bi nga xam ne moo joxoon ndigal maam Thierno Ibrahima mi eh, mi sëriñ Bass Abdou Khoudoss doon wax léegi di suñu xarit di suñu yaay maa ngi koy nuyu baax a baax di rafetlu aussi moom taxawaayam ndax waxtu nekk bu magal gi weeru màggal xasee teru bis bi yàlla sàkk day wat téléphone Cheikh Abdou foo toll Cheikh Abdou foo toll na nga xam ne yow foofu yaa fi nekk nekk fi waa eh, ndax sëriñ Tuubaa lu mu am rek Thierno faa mu doon ki dara lii la may wax te moom xam ne li muy dund ci eh, ci maam Thierno mooy sama modèle ci ak taalibe bi ak ci lépp loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la ba ñuy ba ñuy créé Daaru Muxti nañu créé Daaru Salaam euh, nañu créé tubaab Fall dëkk yooyu yëpp nga xam ne ñi àndoon ak sëñ bi la bi sëñ bi jox sëñ mën Moussa mu mu mu taxal Tindóodi sëñ Fall mu taxal Ndindi euh, sëñ Massam mu taxal Daaru Karim ba ci xel xelkom yi nga xamante ne bi kenn ku ne gis na la fa sëñ Sall def barki démb rek foog naa ña nga fa di gum-gum moo xam ne Sénégal gépp man a leen a yor ñu def fa yar di fa jàngale di fa jàngale liggéey. kon aussi loolu day day taxaw yu am solo yoo xam ne yoon mi ngi koy taxaw ci jamono sëriñ bi ba nëgë ni dafa waxtu nekk ñu di ko yeesal di ko wan nit ñi defuñ ko ngir puuk réew. waaye dañ koy def ngir nit ngi di ci jànge dañ koy def ngir wan leen aw yoon dañ koy def ngir wan leen exemple. ñu xam ne kat nii la ñu war a mel ndax yoonu moom jàmmu yàlla liggéey jàpp sa njàmbur. mooy mooy base bi. mooy base bi ak xam-xam. xam-xam surtout. xam-xam boobu nag moo la Cheikh Mouhamadou Mountakha. <laughs> alors euh, laaj bu mujj bi euh, pour être en adéquation avec vos propres responsabilités au niveau de la communication euh, xëy na journaliste yi damay noo pas xëy na c'est sûr. Mhm. journaliste Sénégal yëpp ñu ngi waaj pour couverture bi yow yaa yor mm, mbir mi lan nga leen di jox comme garantie yaa ngi wax ak Sénégal yi yaa yor communication bi lan la ñu war a mun a xaar lu yees lu bees loolu ñu dollil. lan lañ mën a mën a jàpp laata ñu tëj émission waaw li li li li li ñu leen mën a garantil moo di contrat moral bi nga xam ne Serigne Bassirou sas nañu ko mu di bu ñu dikkee bu seen dara manqué ne ca njëlbéen nga képp koo xam ne war naa dikk bala muy dikk na fekk këyit yi këyit yi tax mu mën a liggéey muy badge yi ak accréditation yi na fekk moom loolu pare loolu mooy liggéey lañu jot mhm. beneen bi képp ku dikk lépp lu mu bëgg xam ki sëriñ bi dañ ko boole ak koo xam ne moom ma koy xamal ku dikk nañ ko dal nañ ko toppatoo nañ ko berndeel ndax màggal gi bernde la kon loolu moom dañ leen garantil ne képp koo xam ne ñëw nga Touba da nga nekk ci condition yooyu ngir liggéey liggéey boo xamante ne bii liggéey bu rafet lay doon ci li ci des itam xaj euh, asun juñu na ko léegi dañu am problème ci cérémonie officielle bi loolu fa loolu fa bu taxaw ci ndax cérémonie bi dañ ko defee ci benn tànt boo xam ne junni nit ak genn wàll xañ na ñoo cee nekk la cay nekk matu ñaari junni nit Euh, journaliste yi mat junni kon bu yéen bu ngeen duggoon rek tey mel na ne place bi day fees. loolu mun a nekk. kon aussi faw ñuy xajalante faw ñuy waxtaan. Euh, ba tax cérémonie moom waxtu wu nekk journaliste yi téeméer ak juróom fukk lañu fay nekk loolu nag kon am na day mel ne am na juróom-ñetti ak lu topp loo xam ne dañu fa nekk. Mhm. loolu arbitrage la laaj. mais lépp ci waxtaan lañ koy defee at mu nekk danañ ci wax bu jubo ci. Mhm. mais ren dañoo bëgg mm, def benn réunion technique. ak mboolem télévision yi nga xam ne dañuy def direct ndax ñoom ñoo ñu gën a mën a en tout cas indil ay jafe-jafe foofu. Mm-hmm. ndax télévision buy def direct la mu fay dugal ci ay nit ak matériel day bari. day bari waaye mënut a ñàkk léegi nag ñu bëgg xool naka la ñuy amee un signal propre boo xam ne comité bi moo koy toppatoo kenn ku nekk mu jox la ko. fekk yow def nga sa plateau ba boo jotee signal bi nu mu la neex da nga ko mën a commenter nu mu la neex da nga ko mën a dugal nu mu la neex da nga ko mën a génne loolu nag innovation amul lenn loo xam ne décidé gun nañ ko mhm. mais danañu toog waxtaanee ko xool techniquement naka la gën a mën a nekkee ci loo xam ne kenn ku ne da nga ci gis sa bopp gis ki sa euh, en tout cas ñu préserver say intérêt mhm. ba ñu mën ko def parce que si loolu mooy intérêt organisation bi mooy gën a yaatal li nga xam ne euh, ñu ngi koy def muy doon émission spéciale euh, ci euh, Télé Futurs média euh, ñuy gëm Serigne Bass Abdou Khoudoss bi nga xamante ni moom mooy porte parole Daaru Musti di gërëm it Serigne Ahma Ahmadou ibnu Serigne Fallou Serigne Bass Porokhane ibnu Serigne Moustapha Mbacké naka noonu it Serigne Cheikh Bara Laxaat di ku jegoon trop Serigne Sidi Makhtar di gërëm Serigne Cheikh Thioro Mbacké yor kaddu guy mbind naka noonu El Hadj Assane Gueye bi nga xamante ni moom it euh, moo fi yëkkati kàddu ci turu groupe Futur Média jëmale ko ci màggal bi euh, di gërëm euh, Vieux Diouf ci réalisation bi sëñ Abou Mbacké ci coordination bi jàppale ñu trop nag ci jokko bi ak kilifa yi nga xamante ni ñoo àndoon ak yéen di nag ber gërëm ak sunu invité de marque di Serigne Cheikh Abdou Lahat yor commission communication ak culture ci màggal tubaab bi sëñ bi ñu ngi gërëm xanaa rek nga nga def ñaan national ñu ñu Euh, man suñu ma ñaan ndax taalibi la euh, li ñuy li ñuy wax rek moo di di di di di leen sant. Mhm. muy euh, TFM ak vraiment tout la presse. Mhm. ci de manière générale seen taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet la. waaye di leen doole ñaax rek. Mhm. ne kenn ku nekk bala ngaa dikk li nga xam ne suñu mu taxaw wax na ko. ci li nga xam ne mooy avant première bi na ko déglu nang ko teewlu te na ko jëfe bu loolu amee rek foog naa ne lépp dana rafet lépp dana yéwén te lépp aw yiw lay doon. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërëjëf Mbacke maa ngi leen ko doon wax eh, ci tàmbali bi te FM tàmbali na li nga xamante ni moom mooy eh, màggalam eh, li koy firndeel mooy na biir dina biir léegi léegi léegi te mu ngi yëngu tey spécialement ci safaar bi nga xamante ni moo xew ci jamono te si loolu la ñuy dox di si ànd ak équipe bi yëpp mu ngi ñëw di ma wuutu fii ci programme Télé Futurs média jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñun incha allah ba beneen jamono.